Euh, sur li nga xam ne moo di euh, résultats yi nga xam ne itam boobu bureau de vote yi ñu koy daal di joxe nii. Mm. may ñu fàtte aussi PV dina daal di yegg si nga xamné ne modi euh, euh tribunaux yi ni daal di war a mën les résultats définitifs ñu daal di xool li nga xamné ne modi di passif ana ñaata la am euh à son escarcelle. alors si lolé exactement itam dañuy ñëw ci diagramme bi manam mm, euh suñu dessiné woo wala comme suñu sukkandiku exactement sur les résultats actuels ñaata lañ mën a que ni Pastef wala na ko daal di war a mën si nga xam nekk moo euh, élection yi si euh, nombre de députés alors su ñu ko mënee am du côté de la régie justement élage euh, nga daal ñu koy war ñu xol li nga xam nekk moo di bi par rapport ak nombre de députés bi nga xamni itam peut-être Pastef wala na ko daal di war a mën a yoon alors euh, donc euh, résultat de Passif, nombre de sièges euh, nombre de députés sur la liste nationale nous exactement nombre de députés sur liste départementale parce que y a 15 régions qui ont été diaspora y a aussi départements système bi raw la voix donc qui n'a pas ne que moo di Pastef euh, na am suñuy xool euh, cent euh, trente deux li nga xam que député si ay nombre de sièges suñuy xool li nga xam ne que suffrage valablement exprimé pour Pastef peut-être dina toll si cinquante sénégalais ñoo faloon ak li nga xamné que modi 54 tay ji nak suffrage exprimé bi peut-être mëna tollu ci nga xamné que modi 56,71 ci ay pourcent le nombre de députés à redistribuer manam député yi nga xamni ne itam après dinañ ko daal di wat yi dess euh, les plus forts récents dina tollu ci nga xamné que modi 8 huit députés exactement donc nak euh, mi ngi noonu par rapport ak li nga xamné que modi di Pastef sûrement Tahirou Sarr dina ci am li nga xam nekk moo député mais en tout cas d'après dina xamné que modi résultat yu ñuy euh, yu jot ban daal di defee li nga xamné que modi estimation bi ci diagramme bi passif il am 30 euh, députés si la liste nationale Il y a aussi 102 députés la liste départementale bi y le que a jox 132 députés euh, pour le passif alors bataille tey euh, si nga aussi mën am 14 si li nga xam si am aussi 7 si départementale bi. Euh, autant que pour moi takk wàllu ñu ne mën na am sept si département bi euh, sept aussi si national bi donc takk wàllu moom mën na am quatorze députés euh, mooy bu ki nga xam ne que moo di Macky Sall alors ñu dem si jàmm ak njëriñ jàmm ak njëriñ aussi ñu ne mën na am quatre national bi mën na am aussi deux si par conséquent ki xam ne que moo di jàmm njëriñ mën na am six députés ñu dem si sàmm sa kàddu aussi ñu ne mun na am zéro si département bi toi si national madame euh, Sam euh, Sam sa kàddu mën am ñetti député euh, moy Barthélémy Diaz Anta Babacar donc député lay donne entre député lay doon Barthélémy Diaz député lay donne troisième position bi je pense que c'est un élément de du pur élément pur le moo troisième position bi donc li nga xam nekk Sam sa kàddu mën am trois députés ñu dem si marche des territoires ànd ndawlé foofu foofu aussi suñuy xool li euh, département bi national aussi par conséquent nous avons deux députés foofu nationale mais que par rapport à wàllu bu mel donc euh, ils sont au nombre justement de euh, jamono ji de euh, si euh, euh, résultat yi nga tam jot nañ ko daal jotani donc Sàmm Sa Kàddu trois députés li nga xam nekk moo 2 Jàmm 6 Takku Wallu 14 Pastef 132 députés exactement ana naka daal di jangate li nga xam nekk moo bi par rapport ak li nga xam nekk moo di de députés dou ñi xaar li nga xam nekk avec un nombre à toll si 132 si députés 102 départements 30 nationales ouais, exactement c'est c'est normal que parce que bon xolé li nga xam si moo euh, résultats yi bien vrai que ne yëpp matagul da démb avant may tëdd rek ñu ngi doon calculer lu toll ak passé war am ci lu toll ak 119 députés mais pour le moment ni ni boo xoolee euh, comme li nga xam moo répartition des 112

bu fekkee ñoom ñett ñooñu ñoo ñooy ñooy doon député kon bon comme ba tey ma ñëw ci euh, li nga xam se ni moo di. Euh, Euh, liste maanaam euh, répartition député yi nga xam mm. se ne am na ko bon parce que loolu résultat yi ñooy ñoo koy wane ndam parce que yaa ngi doon wax ñi ngi ko doon wax démb il faut nga am soixante mille voix pour nga mën a am benn benn député mm. kon euh, léegi il faut que bala ñoo xam nombre total li nga xam se ne moom la ñuy instant bi ngi estimé Pastef maximum waaw taux de participation bi am nañ quoi ñu ci quarante xam nga mi ngi woon ci quarante neuf pour virgule soixante léegi nag bon buñ ñu demee ba daje dajale tous les résultats xam nga calculer ñu xool exactement euh, ñu xool conseil constitutionnel moom euh, lu muy génnee léegi après buñ cal buñ ñu defee exactement yaa ngi wax ne Pastef mi ngi war a am lu tollook 131 euh, trente et un euh, euh, kon nag li nga xam si moo di victoire moo di résultat yi moo mooy déterminer nombre de députés yi nga xam ne moom la war am et que c' normal que vu que Pastef jël na majorité bi bon je mm. pense que c'est normal que nombre de députés yooyu noonu moo ñu am ko alors Régis su la mën wanaale aussi jagaraam bi en même temps daa si ñëwaat

ànd nawle wa parce que ànd mm. nawle moi gagné département bu Gossas bi. moom la ki nga xam ne moo di euh, Seydou di je pense. Mm, ànd nawle. ànd nawle ok. Mm. ok ànd nawle fi feneen. Euh, député bañ éli éli Gossas mi ngi tudd Amadou Diallo. Moi beaucoup Amadou ànd nawle parce que ànd nawle foofu noonu classement bi mi ngi am dix mille voix. Euh, Pastef mi ngi ñëw am neuf mille voix. kon déjà siège département Gossas ànd nawle am na fa am na fa. Euh, bien que Tahirou Sarr hmm. c'est normal que parce que dafa dugg ci benn piège mooy comme ni ma ko doon wax dem piège piège mooy bi Ousmane Sonko génnee di wax en fait euh, ci wàllum euh, nationaliste ak wàllum patriotisme hmm. voilà tu vois mu ne muy wax ne ñun duñ ay nationaliste mais ay patriote lañ tu vois euh, léegi nag euh, bon ci pièce boobu noonu Ousmane Sonko lim ñëw énuméré ci wàllum nationaliste ak ak ak patriotisme loolu noonu moo rendre aveugle ki nga xam se moo di Tahirou Sarr ba euh, malheureusement mu mujjee génn def point de presse ci après après ci point de presse boobu nag bon. ci la euh, xam na ñu bëri ci la ñuy door a rendre compte que ne exactement maanaam euh, ki nga xam si moo di euh, Ousmane Sonko def na le tout pour démasquer ki nga xam si moo di Tahirou Sarr bi nga xam ne moo doon jàppee boppam nationaliste voilà génn exactement pour wax ne voilà genre exemple imagine toi ngay wax ngay qualifier benn benn benn benn benn comment dirais-je benn ay benn ay yenn nationalité ngay wax ne ah, ñoom ñoo tax ba suñu ndaw réew am liggéey et tout mm. parce que non c'est pas c'est pas comme ça mm. bu doon kon xanaa kon euh, sénégalais yi nga ñoo extérieur Italie wala France wala ñii euh, Angleterre wala Belgique xanaa kon pays yooyu noonu ñu a wax nañu kon peut-être xëy kon sénégalais yi ñi ñoo tax ba suñ suñ am alors que non c'est faux euh, exactement parce que boo xoolee sénégalais yi nga xam ñoo extérieur am extérieur yow bëggee doomi dëkk yi nga xam doomi yeneen dëkk yi xam ne ñoo ñëw Sénégal boo leen bëggee traité beneen façon boo xamante ne nii bokkul bul fàtte ne yow tamit am nga say doomi dëkk yoo xam ne ñu nga nekk fële na moo tax il faut que xam nga bala ngaa mm, teg benn acte il faut que nga analyser ko xool exactement yi yan conséquence lay am. Hmm. avant ngay wax avant avant ngay avant ngay poser acte boobu noonu moo tax nag euh, bon bi Sonko ñëwee pour recadrer ki nga xam ne moo di Tahirou Sarr wax ko ne ko ñun ay nationalité mais ay patriotisme ba génne li nga xam ne moo di chiffres yi nga xam ne moom lañu def ci euh, moom lañ relevé woon ci ANSD bi mm. joxe temps de chiffres temps de tant de tant de euh, comment dirais tant de de de de de de de maanaam ñoo xamante ne ni ñoo nekk ci réew mi quoi ak ñi nga xamante ne ni tant de ñoo xam ne ñoo génn ñoo génn ñoo génn réew mi voilà di def comparaison bi genre foofu nag la Tahirou Sarr defee erreur génn def point de presse euh, ba estime bi nga xam se ne jotoon na ko am ñu bëri loolu xam ne exactement kon Tahirou Sarr euh, li moo nekkoon position mais grâce à euh, comme li nga xam se moo moom la Ousmane ko wax tax na mu démasqué ko ba c'est normal que Tahirou Sarr yeneen ñi commencé ko jiitu fekkee ne sax au moins dina am député kon

mbokk téléspectateurs yi ma ni kon nak euh, bobu dina xamné que modi di les statisticiens yi daal di defar daal di sukkandiku exactement sur les résultats euh, provisoires yi nga xam itam jot ko déjà daal di am muy daal di circuler euh, un peu partout en attendant ñuy daal di xaar li nga que modi les résultats définitifs yi nga xam ne itam la la cour d'appel daal di joxe après suñu problème daal di la répartition des sièges ana ku nek ñaata ngay daal di am ni si wàllug député alors batay ñu daal di ñëw si nga que modi euh, élection yi ak li nga xamné nekk modi exactement ma kon euh, de plus en plus nak euh, li nga xamné nekk modi tendance globaux yi mi ngi dal di un peu partout mm, fils Sénégal suñu xol sànq wax naa fosaanu Thiès li nga xamni ni itam jot nañ ko fa daal di amani dañuy avancer ñew fenen si li nga xamné nekk modi di département alors département bu parce que mi ngi fay am 33640 takku aussi am